xaar aljuma bu jot ñu dalal fii su sunay naataangoo ngir mën a jàngat li xew ci ay bés bi mu di euh, une revue de l'actualité euh, ñu di ci ànd ak euh, Mademba Ramata Dia Mademba jóg leen nuyu waaye Issa maa ngi lay fay bu ma la fay ba pare nuyu Pa Assane ma jàkkaarloo teg ci téléspectateur yi ak bépp internet boo xam ne Walf TV moo la safoo jërëjëf euh, Mademba Ramata Dia Paasan Seck wax nga ko bii passé moom dama laa daal di kii rek ñoom Moustapha <laughs> Moustapha nungu la euh, ravi de vous retrouver sur ce plateau de l'édition du soir bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu Baye Issa maa ngi laa nuyu Cheikh Issa di nuyu kilifa bi ma Mademba Ramata di nuyu seetaan ak équipe technique bi di wax yàlla na yàlla wàcc fi xéewal barkeek yiw donc kaasi gi ak jaboot ga barkeel barke salaatu faatiha dund ba sëtaate te dal ko barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ñi dem Makka yàlla na yàlla nangu leen seen xaas ñi fi des yàlla na yàlla nangu leen seen jaam amiin defal ñu tabaski gu neex amiin yaa rabbi ñëpp am ndax keroog maa ngi posé question sax di laajte ndax adduna bi Sénégal rek moo ci tabaski wala déet ndax li may faral di gis moom je me demande. waaw ñun de dañoo ñun dañoo. ñun dañoo xër dañoo exceptionnel dañoo. te ni nu gëmee bis bi bu bu nu ko amaana bu bu julli bi dëggoo woon noonu. ci sunu gi. Mm. ni ñu gëmee bis bi suñu julli bu dëggoo woon noonu. amaana lu bëri ci ñaaw-ñaaw du xew ci dëkk bi. Mm. jërëjëf jërëjëf en tout cas ñu rationaliser rek dépense yeeg yooyu noonu xool lan lañ àttan ak lan lañ mën ndax bëdd yoonu mais xam na bopp man li may dénk ñëpp di ko dénk sama bopp mooy li Fromantin wax rek li Fromantin wax nee na le bonheur réside dans la limitation des force et des désirs mm-hmm. yemale say bëgg-bëgg ak sa man-man mm-hmm. boo ko defee rek tënk am na ñoo xam ne bisu tabaski bu deux heures jotee yàpp yu day wax xàtt ci ñoom ndax bor bañ bor mhm. leen di topp mhm. ci après tabaski te dina desaat généralement le mois de la tabaski c'est le mois le plus long de l'année. C'est c'est mhm. très long surtout que ni ko Sénégalais yi di euh, jëlee mais lépp luñ ciy def rek yàlla na nekk yiw. amiin euh, te ñu euh, dem ci tabaski gi ci jàmm. amiin tabaski bële di ñëw muy bu deux mille bi nga xam ne mooy am ci année deux mille vingt cinq la war a am. certainement yàlla nañ ko fekkee. amiin teewoo ko ay déwén déwén. ñu daal di door ndax ci kanam tuuti itam Alioune Sow dinañu dab ci waxtaanu mais dañuy door ak yow ma Ramata Dia ndax ay taskatu xibaar lañ faaw itam ñu xool suñuy góom ñun ñu ne presse bi dafa am ay kërëtuskaay xibaar yoo xam ne dañoo yoreel état mu di wàllum lempo xaalis bu takku am ci sax ñoo xam ne bu ci mel ni avenir communication dañoo bloqué lu tolloog 111 millions euh, ci seen euh, compte yi lu ñu fa defoon mm. waa des médias ñu ngi ko doon waxtaanee semaine bële passe ñu wax ñoom itam yuuxu euh, par rapport ak li ñu nemmeeku ci presse bu Sénégal ak lempo lu waral relation bi mel nii daan nañ ko faral di dégg du tey fu mel ni Walf daan na ko am boobu sax ñëwaguma fi ci jamonoy Sidy Lamine Niass ak yooyu lu waral relation presse ak pouvoir di faral di demee nii surtout ci wàllum fayante xaalis bu jotee am nga presse yàlla dafa dogal mu doon secteur boo xam ne dafa am pouvoir maanaam pouvoir la moom lañ tudde contre pouvoir léegi nag mu amaat beneen pouvoir bu fi nekk muy pouvoir politique pouvoir politique boobu moom dafay itteewoo presse presse da ko itteewoo moom tamit léegi seen rapport yi nag day doon rapport yoo xam ne mën na nekk des fois conflictuel wala mu nekk der rapports yoo xam ne très apaisé léegi nag presse bi dafa yor entreprise entreprise bi mu yor dafa am norme yu ko régir entreprise boobu am dafa am ay obligation yu ko war obligation sociale ak obligation économique léegi nag mu am benn modèle économique bu muy évoluer moom modèle boobu nag boo déggee généralement ñoom li lay faral di wax mooy nous tirons à perte. ñoom loolu mooy seen woy ñu ci ëpp ñu yor entreprise de presse dañ lay wax man damay liggéey ci perte. kuy jaay di perte nag te continuer di ko doxal am na lu ne ci biir te waxuñu ko. loolooy jaaxal waaw parce que pouvoir la pouvoir bi aussi dafay am ay avantages yooyu am am ay privilèges yooyu am day ne yow boo ko mënee a utiliser. par rapport à tes ambitions boo xoolee généralement les patrons de presse ñi moom presse bi ils vive dans l'opulence sonn ñu daal waaw sonn ñu ngi ci mais boo xoolee nag par rapport ak le reste de la troupe ñoo ils sont dans la misère dans la précarité donc ça veut dire que am nañ daal ay moyens yoo xam ni de subsistance yu leen di permettre ñu connaître y a les conventions qui son là y la publicité ak yeneen ak avantage yoo xam ne pouvoir bi dala koy jox léegi nag yow danga war a fay c'est une obligation xam na la mu doon obligation mhm. jaaykatu gerte jaar bi day fay day fay taxe juuti lañ koy laaj da koy fay travailleur bi da koy fay donc mënuñu leen exempté ci loolu nee na dañ koy dagg sax ci bulletin de salaire travailleur boo xoolee mënuñu entreprise de presse mënuñu ko exempté ci loolu mm. mais nag dañoo nekkoon pouvoir yi fi jaar notamment ñaar yi fu mujj mu ku ñu wax président Ablaye Wade régime am ak ku ñu wax Macky Sall dañ daan toog ba mu neex leen rek ñu exonéré kii léegi nag loolu lañu tàmm ba defe ne xam nga nit ki da nga koy tàmmal dara ba mu defee ne faveur boo ko jox ba mu defee ne droit la wala moomeel la mhm. fekk du loolu ils sont régis par le code de la presse ils sont régis aussi par le code des obligations civiles et sociale ils sont régis aussi par les impôts et domaines donc mhm. dañu waral a fay léegi nag impôt moom ñoom bariwuñu problème noonu xam kañ la ñu am problème ci ki bañ a fay mais tant que yaa ngi accepté di dugal ay moratoire di def tuuti jéego wane na am nga yéen a fay du am problème waaw donc li ci war daal mooy ku nekk na nga xam ne tu as une entreprise entreprise boobu dafa am lu la war sa digganteeg réew mi ak donc ak lu la war sa digganteeg sa employé parce que boo xoolee vingt et pour cent des des travailleurs des reporters ñoo ci am CDI ñi seet ñëpp ils sont la prière et puis aussi boo doon xool plus de presque trente pour trente pour cent et ñoo ci am plus de trois cent mille donc ça dire que c' est un boo xam ne dañ ko war a réguler d' abord ensuite assainir ko ensuite refaire ko on a besoin de réinventer ça bu ñu ko deful on va disparaître parce qu'il y a d'autres forces concurrentes qui sont là et qui ne coûtent pas cher et qui nous concurrencent sur le mhm. terrain de la presse classique quoi Pa Assane Seck euh, Mademba Ramata Dia mi ngi koy wax presse bi daanaka boo leen di dégg ñuy waxtu tu te dis quand même euh, nan la ñuy def bay fay employés yi nekk ci entreprise de presse yi jóge nañ ci organe de presse ak ni ñu ko daan mën di wooyee bi yoon ñu ne entreprise de presse lan moo waral relation bi di nekk une relation tendue entre le presse et le pouvoir bu fekkente ne surtout fayam bor jot na mais aussi li patron yi di wax souvent yoruñu te presque bi saa suñu xëyee des fois di gis ay médias yuy tijji yu bees ba pare yi fi nekkoon aussi jógewuñu fi. waaw euh, je pense que <clears throat> tey Sénégal coow li lii jib nii déjà en amont et en aval diggante presse ak pouvoir nguur souvent bu ñu toogee falu dañuy bëgg presse ànd ak ñoom c'est naturel. maanaam dañuy duñu bëgg presse déranger leen ci yenn yi c'est naturel et c'est normal am na beneen wàll nag boo xam ni press pour man jàpp ma ni quatrième pouvoir la pour man presse mooy premier pouvoir boo ko waxee nag dafa laa dégg-dégg pour pourquoi premier pouvoir parce que nguur sax ci information laa dox nguur bu xëyee suba li moo njëkk a lijjanti mooy les service de renseignement ñu xamal leen lii moo xew nii moo am waa ji fii la nekkoon nii la dëkk bi doxee léegi léegi léegi président ñi ñoo lay gasal président bi am ñi ñoo lay xeex ñi ñoo ànd ak yow président bi am rapport yëpp information xale ba juddoo doon bébé yaa ji pour mu am information ne xale bi mu ngi ci jàmm foog xale bi jooy xale bi pour mu yëg ne yaayam la nekkal faw mu nàmp donc la vie est ainsi faite l'info est au début à la fin de tout maintenant la réalité sénégalaise c'est quoi on parle de groupe de presse d'entreprise de presse de la presse en général la presse sénégalaise ci ban environnement la nekk. Mhm. la question c'est ça. ndax presse ngi dox. ndax presse a ngi dox depuis lustre ñu ngi nekk ci environnement wu sunu dëkk yi la presse est à l'image du pays la presse sénégalaise est à l'image du Sénégal ni mu mel. la question c'est nan la Sénégal mel est-ce que on est dans une société de consommation où tu vas voir de Bild wala les plus grands journaux du monde di nekk à 300000 400000 500000 tirages di dem seen yoon. wala au quotidien wala des millions d'exemplaires au quotidien am na jamono boo xam ni sa marchait comme c'est je me rappelle en 2000 quand on faisait 30 000 exemplaires 30 000 populaires à 30 000 exemplaires les gens disaient c'est le journal le plus vendu le plus lu 30 000 exemplaires c'est rien du tout nga dem benn jëmmi à 100 francs en plus ñaar fukki dërëm lañ koy jaay ñaar fukk nga dem ba benn jëmmi jamono euh, à partir de 2004 5 di wàcc 2005 je me rappelle au début c'était 3000 exemplaires 4000 5000 11000 jusqu'à mars 2005 l'Obs était tiré à 11000 de la fin du mois de mars 2005 on passe à 25000 exemplaires Chérif Diagne mu ngi ma déglu l'ancien directeur à partir de là l'Obs passe à 50000 ba 100000 exemplaires aujourd'hui je ne pense plus qu'ils font 100000 exemplaires ils doivent être peut-être bi ñëw. léegi digital bi su ñëwee gars yi dañu war a update nekk dans le temps tey jii nii la presse en ligne bi ñuy parfois di discréditer et cetera mais quand vous la nature a horreur du vide boo bàyyee espace alors que la presse doit s'accommoder ci réalité bi ni ñoo defee édition fu di def di nekk ci YouTube keneen di nekk ci YouTube les chaînes télé traditionnelles les journaux moi je vois mal Mademba Ramata yore direct info. Ouais. un super journal alors qu'on le voit pas c'est-à-dire qu'aujourd'hui direct info dafa war a nekk ci YouTube bi xaalis bi Walf di encaissé ci YouTube wala keneen direct di ko encaissé ci YouTube bi. parce que la presse sa force c'est l'indépendance. mais ni ñuy passante unis aussi revue de presse beeg yooyu nga xam ne daanaka dañ la koy détaillé benn par benn. est-ce que dina dina tax boo nekkee non non ci sukkandiku pour ne journal bi lii la wax da ngay jóg. le journal est plus profond et plus synthétisé et mieux synthétisé revue de bi c'est selon Kaka def. mais ñaata yoon la fi nit wax revue de presse loo xam ne journal bi naan mais j'ai pas dit ça wala ni mu ko waxee waxewu ma ko noonu du jeex parce que kii def revue de presse avec ses limites mel ni man. lecture ba mu ca war a am sax mënu mënu ko sa am je dis juste une chose le rapport entre ou les rapports entre la presse ak le pouvoir le pouvoir doit se dire que presse droit la droit la maanaam dama ko war a protéger la presse doit se dire que man je dois protéger ce pouvoir là. suivant intéret wu dëkk bi. donc une presse ou la presse en général. dañu war a nekk d' abord les premiers stratèges xool fan la intérêt dëkk bi ñu jëmale fa info bi est ce que information bi su ma ko joxee euh, dinaa am scoop wuy dinañ ne man maa ko wax sama journal dina jar mais est ce que dëkk bi du ci perdre dara. foofu la ñu war a dem journaliste boobu nag ce sacerdoce là ce sens sacerdotal pour mu nekk ci faw mu nekk dans les conditions pour mu nekk dans les conditions faw environnement bi baax l' environnement loolooy dëgg. léegi nag presse bi pour mu fay ka alpha ou bêta dafa war a fay moom la débat n'est pas way dañuy fay du ñu fay moo tax damay dégg nit ñi naan way dangeen war a fay le débat c'est pas da war a fay ku nekk ci société bi da war a fay mais nan ngaa fayee ki nga xam ne da nga da nga tey kii kii nga xam ni day jaay nga nga taxé ko cent francs juuti wala fukki dërëm wala cent cinquante wala deux cent am na nu mu doon demee bu ñu tegoon tegoon ci yoon dëgg ñooñu waruñu leen taxé parce que sonn nañu sonn boo xam ne li ngaa jël ci ñoom soxla nañ ko loolu nag nguur mooy am dayooy xool ne nan laay def ba paramétrer ci sens bi bañ a nekk ci sens bële. en tout cas